newal naa leen ca café dorom Rome léegi damay tambali di net li gént doonte itam waxoon na len ko ci café dorom Rome fan yee damaa gént ak maki ñuy dox marché mu santé Thiès di dem ba ci ag maki sopli ku Sonko ci gént ma xol muy songo te man lelu lo ngeen interpréter te ñom ñëpp nak dama leen di invité ci li nak waaw le réalisme africain fiñ ñu toll nii caaxaan bari na bari go xamanteni bi li kep képp moo mën a sowee moo mën a ci jamm am bilan bu satisfaisant bu dul loolu bu ko deful li li leen fi déssé war-war ji moy ëpp nox nox ji man mo duma waxul di interpeller rek gouvernement bi suma ma gouvernement suma wax rek man maké tax may wax ndax moy nday mbili ji moy chef ñuy jël ci yermande Serigne Touba ji nga xamni pour ñepp la tamu ñu koy tasaare mu donte fay invisible itam ndax ay anwar la ba ne barakatul mahi ala yantasharat wa asmat kulliyati wa basharat bobal koy nyep. ñëpp ba mu ca jotee ñom am ci waaye bu ñu ko bu ñu ko nëbb ndax leneen yi ci des yëpp yëpp yëpp parce que état yii état yii nga xam ne référence dafa jóge ca ñaa ate ñooñu iblis mooy coiffé li ñuy def te représentativité am dafa dafa kii dafa large bu ko defee yëf Serigne Touba rek nga mën jël moom mi ne am wasani lahu mina sheytaani waxaadali mën a fexal awtaan pour iblis du la dara